rahmatullahi taala wa ba tey ñu ngi fii si Tëngéej kër El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom di célébrer màggal de Dieu boo xamante ne ñu ngi ko commencé depuis fajar le 11 démb mu nekkoon le 12 ñu invité invité yi tey mu nekk nag la 13 nga xam ne tey lañuy jeexal suba si bërsëg incha allah bu ñu jullee fajar mu jeex te ñu ngi toogal nag suñu koo xamante ne suñu benn invité. doom la ci góor gi moom tamit presque moom la ñu naan moom mooy taawu kër gi te mi ngi tudd sëñ Ibrahima Ngom ñu naan ka xalif général sëñ ah. présenté wu ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ñu jullee ci gannaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi salaahu salaam di julli ci ki ñuy wax El Hadj Amadou Moustapha Ngom Mahdi al man nag man maay euh, Ibrahima Ngom doom la ci fa El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom mi nga xam ne mooy suñu wasila moo ñu wan kan mooy yàlla wan ñu kan mooy yonant bi hmm? euh, wanuñu boppam kenn yàlla daal la ñu wan ak ñu ñuy jaamoo yàlla hmm? euh, moom daal mooy suñu wasila daal. mooy suñu wasila kontaan Euh, euh, màggal bi ñu màggal yàlla bu ñu màggal fii bëggoon nañu nga wax ñu ci tuuti parce que ay at depuis bu mu bu mu soso te El Hadj bu ko commencé fii bëggoon nañ nga wax ñu taxawaay bu mu si doon am ak lan moo tax ñu waral ñu ñuy def màggal yàlla bi ba tey jii ñu koy continuer tey ban taxawaay ngeen si am ba El Hadj mu Moustapha Ngom ba tey euh, bu mu demee boobu ba léegi ñu ngi koy organiser loolu nag ñu ngi ci sant yàlla bu baax di ma di am vraiment euh, dal ak euh, ak liberté pour pour man cee pour euh, pour man cee wax ci question boobu nga xam ne moom nga ma laaj. Mhm. question bi foog naa ne sax ñëpp xam nañ ko màggalu yàlla bi boo ko gisee mu mu am. ndigal la boo xam ne ni yàlla suñu borom ci boppam moo ko joxoon suñu wasila muy El Hadj Modou Moustapha Ngom muy ndigal ci muy ndigal ci mu jox ko ko te ci liñ ma nettali sax benn gàmmu biñ biñ doon dem jóge fii di dem biñ demee ba ci yoon bi ci la wàcc ci yoon bi woo benn xaritam mu ñëw mu ñu dox lu mat 10 mètres mu ne ko man dafa am loo xam ne ni suñu borom moo ñëw ci man wax ma ko nee na ma koy màggal di ko defal le douze le treize le ak le treize waaw muy ndigal boo xam ne nii suñu borom ci boppam moo ma ko jox du yonent bi moo ma ko jox mais suñu borom ci boppam moo ñëw ne ma naa koy màggal ci bis yooyu ñetti bis yooyu ci loolu nag ba bi mu fi nekkee ba tey ñu commencé loolu mu dem moo ko doon diriger. ñaan yi prière yeeg ñaan yi ñu ciy def ak lépp moom moo ko def moo def lépp wax mesures yi ñu ciy jël wax préparation bi ñu ciy def ak lépp ci moom la jóge moom la ñu ko koy sante nag parce que bu ko neexoon loolu mën na koo def moom rek mën naa tëju ci néegam kese di ko def ci di ko def léegi am na ci droit mais nag boo gisee mu boole ñu ci ñun. mbaax bi mu baax et puis mu yéene ñu mu yéene ñu lu baax yéene li nga xam ne aussi moom moom moom moom moom la ko suñu borom digal yool boobu mu am ci moom ñu nit ñu am ci loolu moo tax mu yéene ñu ko ne ñun ñëpp nañ koy defandoo loolu nag wax dëgg yàlla amuñu payam ñu ko ci sant di ko ci gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a yokk leeram yàlla yàlla gën a yàggal taxawaayam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam depuis bi mu ko defee ba léegi nag. depuis bi mu làqoo ba léegi. ndigal la goo xam ne ni aussi wax dëgg yàlla ndigal bi chaque année bu ne. ñu ngi koy respecté. ak ñu ngi koy respecté li nga xam ne moom la fi bàyyi it muy ndigal it ñu ngi koy jéem a respecté même bu fekkee ne lépp matul it ñu ciy jéem a def suñu kéemtalaay kàttan. Mhm. ba ndigal yi nga xam ne ni moom la moom la ñu bàyyal. ñu koy ñu koy ñu koy def mooy ci raw mooy ci duus bi parce que ndigal la goo xam ne ni sa waay suñu bor moom suñu borom a ko ko jox mu bàyyee ñu ko ñu koy topp ba léegi te xam naa ne ba ilaa yow mi diini ndigal bi du lañ année bu nekk bu neex yàlla danañ ko célébrer incha allah waaw te ñeen ne lépp luñ ci ñaanit ñoom ñëpp ñu bu ci kenn ñaan soxla bu ci kenn ñaan aajo bu ci kenn ñaan dara mm-hmm. lépp nañ ko jël jébbalaat ko suñu borom comme ndigal la goo xam ne ni ci moom la wàccee. nañ ko mhm. jël lépp jébbalaat ko kon wax dëgg yàlla daal euh, ñu ngi koy sant daal di ko gis sant di ko ci gërëb di ko ci nangam parce que bu ko neexal moo yemale ko ci moom. jërëjëf jërëjëf xalif euh, mm. euh, question bi ma lay bëgg laaj mooy deuxième bi deuxième mm. question bi mooy xalif kii tey dalaayilul xayraat mm. jamono jii nan euh, ban taxawaay nga gis dalaayilul xayraat jamono bii. Euh, dalaayilul xayraat ni ma ko gisee taxawaay bi mm-hmm. mooy. moom bi mu fi nekkee. daf ñoo jox ay maanaam ay directive maanaam ay ndigal yoo xam ne moom la dalaayilul xayraat war a taxawee. Mm-hmm. te aussi fu mu demit loolu la fa doon wax. même réunion yi ñu doon def di màggal yonent bi wax ji benn la dalaalu xayraat kenn moomu ko guddul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ibbu ngom moomu ko ma sàmba moomu ko ma demba moomu ko mm-hmm. nee na bañ na ko ba nga xam ne nee na dalaalul xayraat nee na turi yonent bi lañ ko mm-hmm. dalaalul xayraat teg ci lu yiw yépp dafa daje ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba biñ koy créer

bu leen ko tuddee les samedi les samedi El Hadj Modou Moussa Ngom ni ngeen ko tuddee dalaa ilul xayraat bu fekkee ne lii ngeen di fekkee ne boo leen ko ko tuddee bu dee dëgg la dina continuer bu dee du dëggit du dem te boobu c'était juillet 1974 waaw bon bi ñu toppee loolu nag ba léegi nii affaire bi mi ngi yàlla mi ngi dimbali mu ngi jëm kanam waaw ngi jëm kanam te loolu yëpp nag ci loxoom la jaar parce que bu ci génnoon it affaire bu egsi fii waaw mais nag boo gisee affaire bi di mën a dem ba léegi nga xam ne moom loxoom moo nekk ci biir loxo yonante bi ak loxoom moom El Hadj mu Moustapha Ngom moo tax ba léegi affaire bi nekk ba léegi ni yàlla mu ñuy suturaal affaire bi mi dox ba léegi depuis cent quatorze ba deux mille vingt affaire bi mi dox. jamono bi. waaw noo gisee taxawaay bi. waaw euh, taxawaay bi nag lenn la parce que taxawaay bi dafa am ay ay ay ay directives yoo xam ne ni ay recommandé yoo xam ne dañu ko defoon pour ñu koy topp parce que lenn la wax toujours daal xayraat nañuy war di jàppante war di dimbalante war di seetante waaw waaw di bañ di naxante di jàppante te yàlla tax bëggante te yàlla tax di dimbalante te yàlla tax bon loolu nag mu loolu nag mu mu loolu nag mu ñu mu ñu mu ñu wax ne nañ ko topp loolu nag du ma ne du ma ne à cent pour cent am na mm-hmm. waaw parce que aussi nit ki booy wax rek dangay wax li da ngay wax li am mm-hmm. waaw ñu ngi koy ñu am nañ ko ñu ngi ci ñu ngi ciy góorgóorlu nag mais nag des na taxawaay bi des na taxawaay bi des na taxawaay bi des na bu baax a baax a baax a baax a baax parce que am na ci yoo xam ne nii dëgg la ñu ngi koy def baax na sax am na ci yoo xam ne aussi sooxe na surtout jàppante bi jàppante bi sooxe na jàppante bi dimbalante bi sooxe na ba pare aussi yéenante jàmm bi sooxe na aussi waaw loolu yëpp sooxe na te loolu da ci doon xar tànk tuba da ci doon insister pour loolu mën a am ci mbooloo mi daalul xerat waaw waaw waaw ñu waaw li ñu mën a ànd mooy. li loolu yëpp ñu ci mën a boole mooy respecter ay ndigalam. Mm-hmm. respecter ay ndigalam parce que nit ki bu fekkee ne da koo bëgg. ngir yàlla gëm ko ngir yàlla. nga ne mooy sa wasila. Mm-hmm. yooyu recommandé yooyu recommandé yooyu moo jox da ko war a topp. Mm-hmm. bu fekkee gëm nga ko te muy dëgg ci laa wax de. loolu mu la diggal nangam na danga ko war a topp na nga topp loolu waaw loolu bu ñu ko toppoon problème bi du am sooxe boobu du am mais ñàkk topp boobu ak ñàkk respecté ndigal yooyu moo ñu indil problème boobu ba démb rek maa koy wax euh, ba booy samay jeunes yi koy wax ma ne ko ñun toujours li ñuy indi problème mooy ñàkk respecté li nga xam ne moom la fi El Hadj Modou Moustapha Ngom teg mais bu ñu ko respecté woon yooyu topp ko à la neew mën a ay jafe-jafe doon parce que jafe-jafe mënul ñàkk mais yàlla nit ñu suturaal ba ba ba dérapage boobu du am. mais ñàkk mais dérapage boobu mooy ñàkk respecté ndigal yooyu waaw. waaw ba lu euh, ma di dénk daal sama kàddu gu mujj gi daal mooy daal mooy recommandation yi ma la wax rek. yooyu nañu jàppante ngir yàlla. bëggante te yàlla tax dimbalante te yàlla tax di seetante te yàlla tax ku nekk na nga yéene sa bopp na nga ko yéene sa sa sa sa moroom dalaayul xelaat nga xam ne jullit la yow ngay jullit kenn gënu fa kenn im nga gënu gënu gënu gënu fi Mohamed Mohamed Sagna gënu fi ma Samba gënu fi ma Demba ki nga xam ne moo gën ñëpp muy kenn la muy Muhammad Rasulullahi moom kese moom la yëkkati loxo ne maa gën ñëpp. mais keneen amul kenn ku fi gën. ñëpp fi bokk doo yem. ay privilège nag am na parce que laaj mu di Moustapha Ngom. à part yonent bi salaalu salaam moo ci tegu. am na loo xam ne ne yàlla jox ko kenn Ibou Ngom amu ko. Massamba amu ko Mademba amu ko. du dëgg. Mm-hmm. kon li ma leen dénk rek mooy nañu respecté ndigal yi nga xam ne moom la fi bàyyi. tant que buñ ko respecté du ñu am benn jafe-jafe mais tant que yër ñu koy sooxe toujours jafe-jafe dana am te ko boobaa ko teg suñu bopp nañu jàppante nañu dimbalante nañu bëggante ngir yàlla mais loolu nañ ko jéem a cultivé te wóor na ma bu loolu buñ ci buñ ko buñ ci sabablu woon yàlla dimbaluñ ci waaw loolu daal laay daal la mooy sama dernier mot nañu respecté ay ndigalam nañu respecté ay ndigalam. gis nañ tamit que euh, euh, télé IFK mm. ki gis ni mm. diw bi ak rajo IFK bi ñu ngi ñu ñu tey mooy wax télé bi li ma wax ci télé bi mooy li may dëng ci télé bi mooy télé bi tele ñëpp la mm-hmm. ku ci nekk rek war nga cee dugal sa participation parce que ki nga xam ne moom moo ñoom ñoo ubbi télé bi bu doon ñoom kese kese kese la télé bi duñ ko ubbi mais télé bi boo gisee ñu ubbi ko pour ñëpp la pour àddina bi te pour pour dara daraul xayraat la seen télé la ak képp koo xam ne jullit nga aussi seen télé la kon nañ ko jàpp seen fukki loxo ak juróom ñaar jàppale ba ba participation buñ ci mën a participer ñu participer ñoo ñoo ñoo ñu def seen participation ndimbal bu buñ ci mën a def ñu def seen ndimbal parce que aussi nit ki li nga li nga moom wax dëgg yàlla waruloo ko war waruloo ci am ci ñaan quoi li nga xam ne yow yaa ko moom yow yaa ko moom yow yaa ciy bénéficié wu sëñ bi kooku da ngaa war a jàpp mu dox da war a jàpp mu baax da ngaa waruloo ko faqasal waruloo ci am benn benn benn benn xol bu benn xol bu ki ñaan warul ci am dara yow yaa moom télé bi suñu tele la ñoo ko moom dama lay firndeel rek ah. boo xoolee ah. euh, tijaan yi mhm. seen télé bu ñuy naan Asfia TV. waaw Asfia FM. Mhm. Euh, bu muy bu ñu amee problème déficit. Mhm. am problème matériel. Mhm. dañoo dem si seen xalif. xalif général bi ne leen ah ñu ne dañoo am problème matériel problème même problème sax pour jënd ay yenn matériels yi. dañ koo am. seen xalif si saa si la def déclaration. génn télé. ne képp kuy tiijaan. dañu bëgg nga def sa participation mhm. dañu bëgg nga dimbali mhm. Asfia FM nga xam ne suñu njariñ lay génnee ñun ñun tiijaan yi mhm. njariñu tiijaan ak njariñu alaaji Malick si njariñu kër si tiijaan yi lay génnee moom lay liggéey kon bëgg nañ ñu ne au de deux jours matériel yëpp taxaw na <coughs> presque collecté nañu loo xamante ne mat mat na sax eh, euh, tuuti moo des pour mu mat un loolu yëpp te xalif bi moo ko woote. Mm, mm, mm. loolu kon. EFK euh, FM ak Kifne TV bu ñu ñëwee. pour daay pour dalaayu loolu xayraat la. lépp loo xam ne lu góor gi doon def rek. mooñ dañ cay génnee. lu góor gi doon kii yeneen télé yi di ko nëbbu. ñu bañ koo fësal. EFK dafa ñëw pour fësal ko. te muy dëgg li nga dafa ñëw pour fësal ko. dëgg la dëgg la dëgg la nga wax noonu mooy li mooy li war a nekk <coughs> li ma la wax léegi rek mooy li war nekk télé bi UFK euh, TV. Mhm. télé bi télé association bi la. Mhm. ak bépp jullit rawatina nag association bi seen télévision la. Mhm. yaa ngi dégg normalement sa waroon na ne sax taxaw ne ku nekk nanga def sax euh, somme nangam wala benn montagne ñu dajale ko muy sub muy muy benn subvention ñu jox leen ko yéen normalement loolu war nekk wala ñu ne chaque mois ku ci nekk. na nga boo na nga na def cinq mille francs mois bu nekk ñu dajale ko jox leen mu nekk seen subvention. parce que ñoo loolu moo war a nekk ku ko def loolu moo war a nekk ku ko deful loolu moo war a nekk waaw li may ñaan rek képp ku ci mën a dugal sa loxo en commençant par man nga dugal ci sa loxo. nga dugal sa loxo parce que télé la suñu télé la bu baaxee suñu télé la bu bonee suñu télé la Touba yi euh, ñooñu nga wax ñooñu ci xalif général di Tijaan boobu mu yéene mu mu mu wax ko see see taalibe ñu def som boobu du dara lu détermination la rek détermination ak ngëm-ngëm kese la mais ngëm-ngëm boobu ñu am ñoom mais ñun mën nañu am ngëm-ngëm boobu ñu dajale ku nekk lu waay am na indi boo ko defee som boobu ñu jël ko jox leen ko yéen mu nekk seen subvention parce que soxla ngeen ay déplacement soxla ngeen ay matériel yoonu war a jënd yaa ngi dégg te te da ngeen di déplacé wu di dem ci dans les régions mais yooyu yëpp xaalis la financement mais il y a dafa wara japp ci je lance un appel ci màggu Yalla, ci darajee Muhammad Rasulullah ci barke El Hadj Moustapha Ngom bu fekke ne yow li ñuy la télé bi lu ci nit man lu ci nit a nako mm-hmm. waaw ci financement nako japp waaw nako japp bañuma sax fixer un montant pour pour pour ñi fi nekk fin du mois wala nuñ koy nuñ ko mën fixer bu ko defee ku nekk dugal ci sa loxo ku nekk dugal ci boko ko defee affaire bi gën a jëm kanam ak gën a jëm parce que doxee ñun ñëpp suñu bénéfice la jërëjëf waaw ku ko defulit it dana dox te ku ko defu te ku ko defee dana dox ku ko defulit it dana dox te xam naa ne bis bu max di ñëwee gëm naa ne dana ñëw bu neex yàlla télé bi dana bokk ci télé yi nga xam ne nii dañ nañu àddina bi yëpp dana ko xam man gëm naa ne te gëm naa ne yàlla na def loolu incha allah jërëjëf Khalil jërëjëf kontaan nañ bu baax si interview yi kontaan nañ bu baax jërëjëf jërëjëfati maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax amiin amiin lii lañ ñaan yàlla yàlla na yàlla gën a yokk seen taxawaay amiin yàlla na yàlla gën a yokk seen fan amiin li ngeen man ren diwén yàlla na ko yàlla kulal amiin seen tele bi yàlla na nekk ci télé bi ak seen rajo bi yàlla na nekk ci télé ak ci rajo yu gën a yu gën a fës ci monde bi te gëm naa ne bu neex yàlla dinaa incha allah gëm naa jërëjëf Khalil merci beaucoup anyway.